maaleykum mbokki staan Leewtoo TV lundi 21 janvier 2019 ñu ñëw ak yéen ci yéenekaay ñu njëkkee ko ci suñu lamb tey suñu làmb tafaatin la indi à la une ci waxtaan bu yaatu la géant de Bawol di tëkk ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 nee na suñu tasewaatee dina ko daan naxte bu njëkk bi dañu ko trahiroon te léegi moo ko sut moo ko ëpp doole dina ko duma daan ko ki nga xam ne mooy journal bi tamit am na waxtaan ak moom mooy kii di Thierno Dramé journal bi amal ak moom waxtaan bu yaatu mooy Thierno Dramé nekk écurie Fass nee na li Tapha Gueye def ci komba bi nga xam ne moo dox ci diggante Balla Gaye ak Modou Lo kenn xamul lu mu doon kenn mënu koo nangu te kii di Moussa Fall ak Mamadou Ali Fall Mamadou Ali Ndiaye dootuñu ñëw écurie ay persona non grata lañ fa dañuy jóge foofu dem ci combat yi nga xam ne am na ci week bi samedi 19 janvier fee ci arène nationale Soundiata moo fa daan kii di Pape fay ca Kaolack lay Ndiomboor numéro 2 daan fak saa Kajoor dimanche ci arène nationale Pape Thiam 2 déconnecté ki nga xam ne mooy Tigo fële ca Linguère Tonnerre daan na fa Tidiane fay ginnaaw bi mu toogee 9 ans amul ndam ñu jóge foofu dem ci la tribune laa tribune Pape Moussa di andi laaj tey nee na ndax kii di Modou jël bi mu jël euh, Eumeu Sène ndax nekkul dafa bëgg daw ki nga xam ne ni mooy Ama Baldé yemu fa mu dem am waxtaan ak ki nga xam ne ni mooy Baara Ndiaye Baara Ndiaye nekk écurie Fass moom nee na Feu Rouge ak ki nga xam ne ñooy mbay Tine 2 dañoo war a nangu jël avance am ndax ay adversaire am lañu ñu dem ci leewtoo point com leewtoo point comme andil ñu tey li nga xam ne moo amoon fële ca Adrien Senghor mu xamal ñu ni kii di Boy Faye moo fa daan Gaskel jàmme te mise ba 500000 la woon. leewtoo point net andil ñu tamit li nga xam ne ni amoon na ci arène nationale bi maanaam location bu cher bi fa am xamal ñu ni arène bi mujjee na doon bijou bu cher trop ci promoteur yi ndaxte foog nga am un million pour mun faa tëgg 500000 location 500000 li nga xam ne ni mooy. policiers yi mu nekk loo xam ne ni doy na waar torop ba ndar na dàq ay promoteur salaamaaleykum mbokki seetaan Leewtoo TV di leen nuyu bu baax di leen wax na moon nañ leen ndax weekend bi guddoon na lool ñu ñëw ak yéen tey euh, seen euh, revue de l'arène ak kan sama mag ndey Coumba Fall ndey Coumba nuyu nañ la Aïcha Faye maa ngi lay nuyu di la fay di euh, nuyu waa mbokk Leewtoo TV yëpp waaw tey dañuy ñëw si revue bi ak li nga xam ne nii moo nekk à la une suñu lomb tey muy tafaatin mu am ak moom benn waxtaan bu yaatu tafaatin ñëw si diggante ma kii di Balla Gaye nee na nañ ko jox Balla parce que bi yoon bu ko jëlee da koy daan ndaxte bu njëkk ba amoon na ay trahison ak lu bëri lu xewoon ci biir mais léegi moo ko sut moo ko ëpp doole pare na daal pour jël ko def un un. waaw xam nga loolu dafa xew na dafa xew wala 2 1 dafa xew suñ ñëwee si cadre sportif bi foofu laay ñëw parce que affaire trahison moom mbër bu ndaan lañ nga am lay Euh, si cadre sportif fii euh, Tapha Tine c'est normal parce que bu Bomb Madié nekkee woon euh, roi des arènes dafa ñëw mu ne roi bi la soxla jëm na am Eumeu Sène amul Eumeu Sène tey mu ne Balla Gaye la bugg jël ndax moo ko ëpp moo ko moo ko moo ko mën moo ko ëpp te suñu suñu bëri dañ dina ko dóor dina ko daan donc c'est normal parce que bu instant bi nii bokk na si tenor yi nga xam ne amaguñu komba te Balla Gaye jóge na si combat bu mag Balla Gaye moo ko daanoon c'est tout à fait normal que mu ak moom mais seetlu naa làmb soo amee ndam day mel ni da ngay xew peu importe fi nga jóge boo amee ndam rek da ngay xew parce que gis nañ kii nga xam ne tam mooy euh, bombardier bombardier tam wax na diggante mag la luy neex la war a doon mu mel ni daal ndam la ñeneen mbëri mbër daal ndam lay bañ ko ko am waaw ak ak i mbërëm xam nga Balla c'est un mbër boo xam ne mbër événementiel la donc soo sooy bëree ak moom di nga am cachet bu baax état bi na fees promoteur itam daañu si gis seen bopp amateur daañu si gis seen bopp tey jii comme li ñuy wax comme nga xam ñu Eumeu Sène ak Modou Lo taxaw na ki fi des si combat euh, mbër bu mag muy Balla Gaye kon c'est tout à fait normal ténor yi nga xam ne noo fi des amaguñ combat ñu jéem ko def yëpp mun si am combat balaa saison bi di tëj ñu dem ci keneen ki nga xam ne nii suñu lamb am nag moom waxtaan muy Thierno Dramé ah. nekk écurie Fass moom ñëw na ba tey ci combat bi nga xam ne jàll na fi diggante Balla Gaye ak Modou Lo ñaawlu torop euh, li nga xam ne mooy rôle bi ci Tapha Gueye joué que nee na c'est inadmissible te c'est irresponsable jot na écurie Fass jël ay mesures par rapport ak loolu. waaw ñu fàttali ne que Thierno Dramé moom mooy trésorier yu tout à normal parce que lu mu wax ci interview ci ci sunu lamb nee na lu ñuy teree Papa Sow à peu moom la Moustapha Gueye def donc soo liiree li mu def ci interview bi yëpp li mu expliqué yëpp xel mun na nangu loolu ndax Tafa Gueye munoo nekk directeur technique écurie Fass écurie Fass bokk ci écurie yi gën a mag fii ci ci Ndakaaru ngay dem bon ci li muy wax dem di jàppale beneen mbër boo xam ne nekkul écurie Fass du ko wutal coach du ko wutal boxeur donc c'est tout à fait normal mu ne tey ji yoon la responsable écurie Fass yi génn waxanteeg Moustapha Gueye donc donc sorte boobu euh, normal la mu def ko aussi ni nga xaar aussi président bi tamit génn wax ndax Mbaye Gueye wax na Thierno euh, Thierno Dramé wax na c'est normal aussi écrit euh, président bi nga xam ne mooy personne morale bi aussi wax aussi ni nga xaar aussi réaction Moussa Gueye woo nañ ko ñun jëm ko euh, contacter pour mu wax mais pour le moment nee ak coow bi nu mu bëree nii il ne c'est pas important pour mun a wax si si si si problème boobu noonu mais daal à part euh, euh, Abbas Nooy mi di président écurie Fass le principal concern mais Moustapha Gueye yoon la aussi mu wax pour teggi tuuma wala pour leeral la moo tax mu jàppale Balla Gaye si combat bi nga xam ni moom la bëri ak Modou Lo waaw olof sax da koy wax nee tontu parfois du du du ragal wala dara mais leeral la dindi tuuma la parfois parce que wax ci tam bëri na. waa wax ji bëri na c'est normal parce que suñu demee ba nu ne gis nañu ay vidéo yoo xam ne Serigne Ndiaye 2 bi nga xam ne bokk na écurie Fass dem di jàppale Balla gay 2 su fekkee ne loolu am na ndax man vidéo gisuma ko loolu y problème parce que tey jii xam nañu tey jii Balla Gaye 2 mun na bëriwaat ak ak kii di xam ne mooy giriboo Bordeaux tey jii. situation bi des amee Moustapha Gueye ban position lay ban position moom la nar a taxawee ak aussi loolu tamit est-ce que Gris Bordeaux dina ko wóolu parce que seet nañu bii face wóolu euh, euh, confiance amatu fa mbër yi ñenn mbër yi duñu wóol ci seen yenn dirigeants yi xëy na tamit lii lii situation bii la ñu gisoon moo tax mbër yu bëri ku su mel ni Gris Bordeaux am na ay dirigeants yoo xam ne wóolatu leen xëy na am na si ay éco te nag écho yooyu mu amoon wala soupçon yooyu amoon dafa dafa confirmé par rapport ak Moustapha Gueye ni mu def ak euh, Balla Gaye waaw Ndeye Comba dañuy jóge foofu dem si li nga xam ne ni mooy week bi ñu jóge parce que vraiment c'était riche en gala journée bi neexoon na torop samedi dimanche lépp amoon na gala arène nationale ñu tëgg fa première journée bi ak euh, Leye Ndiaye mu indi Soundjata ak Pape ñu gis euh, jël bi nga xam ne ni Pape euh, Pape Sène daan nañ ko fa na Ndeye waaw mën na mën nañu wax ne mooy premier combat bu am arène nationale Pape Sène ak Suñata donc soo xoolee comment bi à peu près dafa mel ni que dañuy wax rek euh, yoon. Euh, jot na mu mu wékk ngémbam parce que ni mu ko ni mu ko daane dafa mel dafa sonnoon bëggoon na presse yi si làmb ji donc c'est c'est tout à fait normal que jeunesse bi premier si si si si si expérience su Pape Sène et que Pape Sène aussi c'était une occasion mu ñëwaat parce que toog na ay at yu bëree bëriwul aussi amul victoire occasion la woon mu mun na ñëwaat au devant de la scène mais malheureusement euh, suñu te war na nekk jeunesse la jeune la te war na ko aussi doole waaw feneen fu nga xam ne nii keneen ki nga xam ne moom profité ne ci occasion bi mooy ki nga xam ne mooy Tonnerre fële ca Linguère Tonnerre presque 9 ans amul victoire bi ñu ko joxee ki nga xam ne ni mooy Tidiane Faye daanaka sax ñoom ñaar mun naa ñoo bokk situation parce que Tidiane Faye tam euh, gëj na am ndam mais Tonnerre réussir na la résurrection comme ni ñu ko waxoon. waaw c'est on peut dire une victoire du d'un revenant parce que fu mu jógee aussi moo sore métti woon na trop ndax bu mu amee euh, défaite mbër moom tant yaa ngi am victoire du ñu gis say faay mais soo amee défaite commencé coow li commencé bëri demoon na ba découragé si làmb mais tey jii victoire bi nga xam ne am na ko si kaw tijaan Faye c'est une façon de montrer. aux autres wala boog ñi nga xam ne noo ko doon ngaaññi ci par rapport ak défaite ne il toujours là et que seen euh, il toujours là et am na am na aussi beneen chance boo xam ne may na ko promoteur bi may na ko pour mu ñëwaat encore si lamb yi Tidiane Faye aussi ni koy wax mu jéem xoolaat boppam ndax mënoon nekk équipe nationale nekkoon équipe nationale daan fi ay jëllu yoo xam ne ay nekk na top 5 parce que un mois tey jii nga nekk si ay difficulté soit mu xoolaat boppam wala boog mu xool li nga xam ne moo ko manque si si si bëri bi parce que fi mu nekk ay technicien yu mag noo fa nekk ni ngi mel ni euh, Père Max donc ak ñoom Père Alioune Diop ak euh, président Niang ñooñu je pense que ñooñu suñu toogee waxtaan ak moom xoolaat ko soññaat ko xëy na dañu xool la moo ko manqué pour mun ñëwaat au devant de la scène Kumba dañuy dem si suñu confrère euh, Pape Pape Moussa Traoré moom dafa andi benn laaj boo xam ne teg na ko muy euh, ndax Modou Lo dafay daw Ama Baldé ba tax mu jaral ko mu teel a jël avance ki nga xam ne ni mooy Eumeu Sène pour jéem a daw Ama Baldé. non je pense que ñoom waa staff Rock Énergie dañuy suivre seen euh, seen logique depuis deux ans. ñoom li ki si mel ni Birame Gningue wala sax Modou Lo saa yoo leen euh, interpellé si combat ak euh, Ama Baldé la ñuy wax pour le moment nekkul seen cible donc xëy na si logique boobu la ñuy la ñuy la ñuy nekk xëy na suñu jeexalee ténor yi VIP si cercle boobu suñu séparé xëy na daañu wàcc euh, ba rek bu boy yi ko si mel ni Ama Baldé waaw dañuy dem euh, tey ci li nga xam ne nii dina am fële ci arène nationale muy bi nga xam ne Fallou Ndiaye dina ko def diggante kii di kàddu gi ak usine doole mu war a remplacer combat bi waroon dox diggante Pape Mbaye ak euh, ki nga xam ne ni mooy Ramdan pour finale TFP bi combat boobu tey la ko remplacer mu war a def tey li nga xam ne ni mooy seen face à face ci arène nationale. waaw combat bu neex lay doon parce que ku dégg kàddu gi di nga dégg lu mu tàmm di wax mooy slogan dina ñam donc xam naa euh, nu def nu wax rek ne usine doole mbiru c'est vrai que mbiru simple la mais mu def attention bu baax si si kàddu gi sa vrai que mag na ko ay at yu bëree bëree mais nag comme lu ñu wax rek mbërum mbërum màgge moom toujours day dese ay ngelañu waaw dañuy des ba tey Ndeye Comba ak li nga xam ne nii mooy arène nationale bi parce que tëgg nañ fa samedi première journée mais amoon na ay euh, wax yoo xam ne jug na fa maanaam organisation bi ak frais yi muy laaj dafa bëri parce que Pape Diagne xamal nañu ni que moom sëñ Modou Niang lay liggéeyal mais li ñuy laaj dafa bëri presque un million diggante bi ngay fay cinq cent mille location fay cinq cent mille pour euh, sécurité neen dafa bëri bu fekkee nii la ñoom i yem fi nga xam ne ni mooy Ibamar parce que charge yi dafay bëri torop ci promoteur agem loolu képp koo xam ne yaa ngi yëngu si làmb rek nga di constat bi nga def mooy arène bi local frais yi bëri na trop parce que soo déggee léegi promoteur bi nga xam ne mooy ñëkk tëgg si si arène bi fii sujet na ko euh, sécurité cinq cent mille location bi cinq cent mille te cachet bi ñëwagul yeneen ak yeneen ñëwul loolu dafa diis ci promoteur bi c'est vrai que pour le moment CNG jëlagul en charge euh, gestion wu euh, euh, arène nationale bi ministère moo koy gérer mais je pense que ministère war na mën waxtaan nag promoteur yi nga xam ne noo fay tëgg nu wàññi leen surtout promoteur nga xam ne entre guillemets moom lañ tuddee promoteur yi ndaw yi nga xam ne seen cachet mbër yi ñuy fay passewul 2 millions wala 3 millions ñooñu mu leen ko mën a wàññal ba nga xam ne dañ nii nii ma gisee nii arène bi ni ñu koy frais yi ni mu bëree 1 Euh, sécurité ak euh, location bi gëm naa ni ren promoteur yi nu gisee nit ñu bëri nañu fa daw dem di xaar tëgg mu leen jaral seen tëgg benn journée dem tëdd tëggeek Iba Mar ñu ñëw arène bi mais daal looloo si mënti xam dégg daal mooy arène bi location bi bëri na na trop frais yi bëri na non cher na trop parce que nit ñi bu ñu doon euh, ñaan arène bi c'était pour am lu soulager promoteur yi mais gis nañ Iba Mar moo gën a accessible foofu li nga xam ne mooy arène nationale ñi nga xam ne ñooy seetaan Leewtoo TV tey lii lañ leen andiloon euh, ci seen revue de l'arène di gërëm bu baax ki nga xam ne mooy euh, Talla Ndiaye di gërëm Babacar si montage bi di leen wax euh, ki nga xam ne mooy Babacar Diom dina fi teew suba incha allah parce que dafa am empêchement rek moo tax tey gisu leen ko dafa dem voyage moo tax euh, weekend bi yëpp ak tey gisagu leen ko mais suba incha allah dina fi ñëw Ndeye Comba waa di nuyu Babacar boobu noonu di nuyu tamit mada euh, euh, soxna si Tendeng moom euh, demul voyage dama dem seeti Tendeng donc c'est normal mu dem namantikoo ak ma soxna si di nuyu Talla di nuyu Babacar si montage bi di nuyu aussi As Tantine depuis depuis Italie mu ngi wax ne ko teranga bi bari na chéri Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies maa ngi koy gërëm di ko sant di ko wax ni ko yàlla na xewal bi yokk bu bëree bëri Aïcha jox ñëpp daje suba incha allah. waaw mbokki Stanley Leewtoo TV ba suba ak jàmm incha allah.